siiw du jàmmi borom maa xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw ma jógee Sacré-Cœur damay delluwaat fii ci tribunalu Dakar tribunalu Dakar nag bi yoon dafa benn fee boo xamante bu doy moo feemoon suñu journal people yi parce yaakaar naa ni ñëwoon nañ ci muy affaire boo xamante ni lañ koy wax bigamie nag soo ko déggee maanaam mooy nga am jëkkër ba pare am far kii kan la nag muy promoteur boobu nekk foofu euh, Tëngéej di Pala moo porté plainte kii nekkoon fi soxnaam di Thiagne Diagne jour ji Thiagne Diagne nañ ko ñëpp xam nañ ko kii di jëkkëram di Pala Mbengue moo jël vie privée exposé ko foofa ca tribunal yaakaar naa ni ku jël sa vie privée exposé ko sa tribunal maanaam dañuy naan yaa ku dee ci marché yow yaa tàggee sa ginnaaw loolu nag Pala Mbengue da doon tuumal kii dafa dem foofa ca France am fa beneen jëkkër bi ñu tuddee Omar Diouf ginnaaw loolu nag si la ko porté plainte ci ñaari chef d'inculpation muy bigamie ak adultère maanaam dafay doon sëy ak moom Omar ba noppi tegaat ci sëy ak beneen góor boo xamante ni Omar Diouf la tudd loolu la Pala Mbengue def ci pentam ginnaaw ba ñu demee nag ca tribunal ba kii di Thiané Diagne jour ji na loolu yëpp nee na Omar Diouf bii ñuy wax nii du jëkkëram amaana kooku faatu am na juróom-ñaari weer ci ginnaaw bi ñu waxee loolu nag Pala Mbengue tamit nee kii di Cheikh Sarr moo takkoon sëy bi Cheikh Sarr boobu nag bi ñu laajee Thiané Diagne nee na Cheikh Sarr du dara lu dul ki ko doon jàngal alxuraan mais Pala Mbengue nee na moom nangul loolu ndaxte Cheikh Sarr ci boppam moom moo ko confirmé par message que moom moo takk sëyu diggante kii di Oumar Diouf ak kii di Thiané Diagne nekkoon soxnaam mais Cheikh Sarr daf ko firndeel ni que sëy boobu bu mu koy takk boobu te kii di euh, Pala Mbengue takkoogul kii di Thiané Diagne waaye Pala Mbengue nangul loolu moom daal jàppal ni que Thiané Diagne jabaram la moom la doon sëyal sëy nañ ci lu toll ñetti at si ñetti at yooyu nag Thiané Diagne nee na le 2 août 2019 la génn kër gi ndaxte daf ko doon ñaan baat mayu ko baat si la génn kër gi mais ginnaaw loolu daal Pala Mbengue nee moom ba tey jii mayu ko baat jàpp kii di Thiané jabaram la ba noppi dem na see kooku di Omar Diouf Omar Diouf boobu nag Thiané Diagne faatu na am na juróom-ñaari weer ci ginnaaw nee moom nag sëriñ bii di Cheikh Sarr Thiané ne moom maître coranique am li ñuy jàng ci Cheikh Sarr sëriñ bi lu mu wax bi muy takk diggante sëyu Omar Diouf ak Thiané Diagne boobu moom Paala Mbengue sëyu yaakaar naa donc Paala Mbengue moom la takk Thiané Diagne ci sëyu jaamur donc ci li ñu mën a jàpp daal d'après mais en tout cas daal Paala Mbengue mi ngi laaj dommage et intérêt kii di soxnaam soosu di Thiané Diagne ci lu toll ci cinquante muy juróom fukki millions muy affaire adultère ak bigamie bi nga xamante ni dox na ci diggante kii di promoteur boobu di Paala Mbengue ak euh, styliste bu mag boobu di Thiané Diagne jour ji maanaam mbir mi daal noonu la demee du jàmmi borom maa xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari